waaye makisal amul élégance su Abdou Diouf makisal amul auteur intellectuel u Ablaye Wade sénégalais dama bëggu loolu ñu xam ko na ñëpp yeewu nag bu ñu yaakaaree ni ni ñu jaara nag Wade ak ni ñu jaara Diouf la ñuy jaaree ak Macky nax nañ seen bopp yàlla ak yaale makisal parewul pour dem ci ay élections yoo xam ne. non seulement waru koo organiser waru koo waru cee bokk waaye ñu jaar ci élection bu jaar yoon le meilleur candidat gagné Sénégal continuer déedéet te it pouvoir à vie la gëm moom donc sénégalais nañu xam ni nañu war a def ba jëlee fi Macky Sall bokkul ak nañu def ba jëlee fi Wade wala Diouf de ku ko teg sa bopp rek da nax sa bopp su dee nag loolu la bëgg na xam ni Sénégal kenn doon ko ci way juróom bu dee dëkk ba nga dëkk nga donnul ba su la nit ñi meree taal sa kër boo yaakaar ni Sénégal 197 kilomètres carrés 197 000 kilomètres carrés yow donn nga ko ba yow yaa war a toog dëju ne mel ni statut ne maa fi toog ad vitam aeternam ndax nga sa bopp loolu mënul am kon star stratégie de kaw boobu nga xam ne ci la nekk lu mu ci jublu mooy su ma mënatul lekk ci cere gi naa fexe ba xajabal ndam gi naa fexe ba bool bi naa ko xajamal bu dee réew mi dafa nar a tàkk sax na tàkk waaye li ci jublu mooy su stratégie kaw amee rek mu justifier li tubaab di wax recours au pouvoir exceptionnel ne réew mi mi ngi en danger ay forces occultes am na ay terroristes jóge nañ fële ay milices jóge nañ fële kon man je j'invoque la constitution euh, état d'urgence euh, euh, couvre-feu je prends tous les pouvoir assemblée nationale sax amatul ci réew mi ku yëngatu nga dóor ku yëngatu nga tëj loolu la jublu ci mbir mi loolu nag dañ ko dul nangul duñ ko ko nangul de parce que ñëpp gis nañ li xew mais tekkiwul it nii nit ñi dañuy banque seen yoxo di ko seetaan muy def lu ko neex moo tax ma wax ni je lance un appel ferme et solennel à tous les Sénégalais ñoom ñi di def li ñuy def nii quelques dizaines lañu quelques dizaines lañu bu leen foog nii ay nit yu bëri lañu ñun ñuy ay milliers voir des millions na ñëpp organiser wu man wax naa leen ko dinaa leen ko waxaat duma koo xam ne damay toog ñu mbéj ma ci euh, ci lexu lexu càmmoñ ma tàllal lexu ndeyjoor ne dóoraatal wër ci tele yi di saaga di xaste sa passe encore waaye dóor moom dóor a koy faj bañu ma ku ma ne ay day yee fitna wala dafa violent parce que Sénégal xamul ku riposte sénégalais xamul ku de xamul ku dóor day dóor ñëpp di gis ñëpp a ngi de tekk nag ñëpp laa wax amul exception waaye ku jógoon riposte ñëpp taxaw nag di wax ndax lii xew nii yàlla xam na ni bu doon passif moo def tournée ñu attaqué ko sax mu défendre tey nga gis nuñ koy traité. les nervis de Ousmane Sonko def nañu lii gaañ nañu kële dóor nañu kii loolu mooy senegal loolu nag su dee ci nii la war a demee ragaluma ku ma ko jiiñ waaye duma ànd ak kenn di la digal demal joxe sa bopp ñu duma la du ànd ak kenn di la digal demal ñu rey la loolu duma ko digal kenn les forces de défense et de sécurité nañu def seen liggéey buñ ko mënut nañu maandu ci mbir mi ngi la waay bu ñu dem di ànd ak ñoom di sot nañ ci maandu ndax buñ ci maandu woon benn fan rek benn fan ñoom ak opposition kese ñoom ak askanu Sénégal kese benn demi matin rek mbir mi jeex kon li may wax sénégalais yi en tout cas ñi ma àndal ak ñi sama sympathisant ak ñi bëgg bëgg seen bopp bëgg seen réew kenn ku ne na nga organiser wu nag préparer sa kaaraange bu leen attaque kenn nag bu leen dóor kenn bu leen saaga kenn waaye ku leen song na ngeen jël seen matuwaay assurer seen sécurité ba mu mat sëkk ku leen dóor na ngeen jël seen matuwaay na mu ko defee na ko defee noona parce que loolu rek mooy solution bi amul beneen solution Macky Sall su dee moom rek ak ñi mu àndal xam na ni ëppul doole nit ñi fii ci réew mi ils sont une infime minorité sociologique li xew mois de mars wane na ko ñoom ñëpp dañoo demoon dugg ci sous-sol yi nëbatu ji waaye bu dee yaakaar na ni ci lii la mun a jaare pour terroriser le sénégalais nax na boppam man Ousmane Sonko maa assumé sama responsabilité woote ne na ñëpp organiser wu ci suuf ba ci kaw ba kuñ fi dóor na nga fayu parce que xamante na ci réew mi la ñu dëkk devant tout le peuple sénégalais